Sandiafou champion nuyu naa la. Euh, maa ngi lay fay Jimane Gamin. Sandiafou euh, ngay daje ak xale boo xam ne champion la xale bi nga xam ne dafay ware Kaffrine xale bi nga xam ne mooy ware ca Ndakaaru xale bi nga xam ne mooy jóge Grand Médine di contact ak le champion bi nga xam ne moom laa tuddee le roi di simpi muy franc xale boobu moom nga jël tey de ndax xam nga ko bi nga koy jël bu baax. Ah, jéemoo koo xam ndax jéemoo Brise na Mer c'est un champion kenn du ko natable yëkkati na fi nit ba mu jug ca kaw mu dóor ko ci suuf ci wàllum contact ci làllum làmb simple dafay dem ak ñoom góor a soog di leen jàngal bëre ak ñoom franc nga ne jéemoo koo xam lu tax nga ne jéemoo koo xam yow it. xam moo tax ma wax la loolu. waaw loolu jaaxaluma kii dem Mbapat di di bëre combat ay ku combat ak juróom. Mhm. di ko bëre di daje ay mbër doo xam ñu ngay bëre ñan la. kon kii loolu jaaxaluma jéemoo koo xam sax. koo xam waaye combat bi comme jël nga ko. yalla ñu ci yalla yobok jam ak salam combat bi lan la la mëna may ci sa carrière en tant que doomu Kaolack mu wara nek ce premier combat bo xamne di nga bëré ak nit ñu ngembee ko ci biti mu dugg si ci biir dëkk bi. wa lolu sante yalla bëré bëre moom comme luma ko wax sank rek champion la quoi champion la tay ji mom muy lolu ñëpp xam nañ ko xam nga nga bëre mom rek moy lolu quoi barka alquran karim ben affaire la. mais yalla baax na quoi nan baay lépp ci loxo yàlla. lan nga koy wax mom yobante na de nee dijj dëgër ko gën te du naan ay doom nee na mu mel ne dalaa umpale lan nga koy wax. man mosuma naan doom xaw ma luy doom de man déggoo lu ma la wax ku may daan si entraînement nga may daane. barke alxuraan ni këram sama combat teg leen ko nga xool amul benn combat bu ma ñëw mooy loolu indi ma forme chaque jour maa ngi entraîné man ku may daan si entraînement nga may daane mais soo entraîné noo doo ma daan de. Euh, bala may jeex ak yow dama lay wax euh, ban appel ngay lancé ci sa mbokk yi nga xam ne ñoo lay seetaan surtout sa sa sa fans yi ndax dafa bëri ci bitim réew ñoo xam ne dañ lay topp. dañ ñuy topp ci sud bi toujours du ñu wax dem leen jëli sànjaafu boo bëree ñu daan ne dugalal leen vidéo bi lan ngay abal appel ngay lancé ci combat bi pour que ñoon ñu mën a jàppale la. waaw waaw ñoom ñu ngi may jàppale quoi wax dëgg yàlla waaw ñu ngi may jàppale bu baax a baax bañ ko ba foofu dama fa am benn kii boo xam ne su ma amee combat ñoom ñëpp ñooy def carte membre foofu di ko jaay foofu ay 5 euros ay 10 euros foofu wax dëgg yàlla diaspora bi moom lu ma fa am fee supporter nu mu toll waaw surtout waa Kanda waa Betuwaar yi daanaka Kaolack daal mooy loolu quoi jour ba moom wax dëgg yàlla ah ne stade mooy loolu de dina fees de. jërëjëf merci. Mhm. merci beaucoup.